بسم الله الرحمن الرحيم ثم لما نال ازدياد أبو القاسم زاد قريش كل اقتياد من على ازدياد أبو القاسم رضي الله عنه أيوه wasalaam mu ne ko wasalaamualeykum mel ni bàyyi daal bëggul lettre bi jeex parce que <laughs> wasalaam xam nga ci la ñuy yem wasalaam mu ne ko wasallim lii ala kulli man laqiita mi man yantami tariqatina koo dajeet nag te mu bokk ci tabi c'est-à-dire te dul sootaani tiyaan boo gis foofu rek nuyul ma ko ni kan mu fasir Habibullah Cheikh comme tafsir Habibu Seck wa man maahu ak ñim nekkal ci ay taalibe am وغيرهم يمنب وعلى أخيك محبنا الحامل كتاب الله دان ودي جاترا سام أمنا يتم سفرائر بوخمنا موكا القرآن لا ودي دي جاترا موكتن من مكو على سائر حضرتكم أكسبين فينك نب كل باسمه وعينه نب كنا سترق سجم والسلام batay taxu bare bam ne wassalamu alayhi wa sallam alaykum jami'an al ikhwan wa ma tara hunna ba'dakum ila al khair mbok yep ngi lay nuyu te sa gannaaw gannaaw boo fi ñëwee ba ñibbi jàmm rek a fi xew sa gannaaw ma maata min al ayaani baadakum illa amuna abubakar may gannaaw boo demee kilifay yi kenn faatu fi lu may suñu bàyyi tax ji abubakar may ak muhammad gàmmu ñu ngi xam nañ ko fekk nañ ko tuub wasa euh, daanaka dara raw ci monsieur sama kese bi ah jàmm li jiitu woon yëpp yow bi ngeen laata ñëw sàmm mooy lettre bi euh, Thierno Madado Diatara Mouhamed bin Hassan foofu Moustapha Gueye di nga am ko ci Fuuta moom la ko bind ñaanal ko yàlla mu sàmm ko suturaal ko ne itam nag mbok mbokk mbok mbok yëpp ci lañ bokk ak ku bi nekk euh, di ko nuyu nuyu boo xam ne mu mi ngi koy tëbboo ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm moom Cheikh yàlla na ko gërëm loo te nañu gërëm ci barkeem jot naa sa lettre bu rafet bu maa ngi lay ñaanal yàlla mu bëbbal ci yow ak ñun ci géeju xam-xam yi ak xàmme yàlla yi ak teg yi nii ak wërsëg biir ak biti ci barke yonente mi nga xam ne ci moom la mbir yëpp daje te mooy tijaabul abam bi loolu yëpp boobu egsee ko di dénk son bopp yàlla dénkaanoon xeet yëpp mooy ragal yàlla te taxawal diine te duñ tàggoo hmm. waaw te loolu nag mu firi leen ko li nga koy munee mooy sa baatin yëpp nga labal ko ci yàlla ak màggaayam ngeeg wegoom ngeeg taaram bi sa zaahir yëpp nga labal ko ci ndigal yàlla yi nga di ci taxaw ndax nee na jaamoorul am cër ci lu mooy yàlla yàlla daf koy doy ba sax jaamu gi muy jaam moom jaam bi sax yàlla ko koy gënal waaye du tere nag mu takkaayu di jaamu yàlla nag ne loolu mooy siraatul mustaqim moom la ko sëriñ yi tàggoon sëriñ bi Abul Abbas Mursi ne ko yegg na ca dayoo ba te ma ngay góorgóorlu comme kuy door a commencé ma ne loolu bàyyi moo ko traduire ñëw jaral ma defe naa foofu nga ñu fekk loolu waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد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 côté ci les premières années de l'enseignement bii moom la sa bii moom dafa am mbokk mu ci kilifa yi ku bi ku bi noonu bàyyi wax digal ay taalibe bu ngeen gis ni affaire tàmbali ak une étape du développement ci bi nga nga koy xamante ne اللون هنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد آه، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين salaatu wasalaamu ala muhammadin alfa c'est-à-dire lii ci kaw nii subhanallah alayhi wa sallam kii bi kii bi ñi doon sotti lettre yi mais lettre bi baa baa baa ngi commencé ci alhamdulilahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على محمد لا يصبح محمد لما يتشاء على سيدنا محمد على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحابته الأكارم من جنة أما بعد جنة جلتي على نك نجنة تدي على سنتي على جلتي ونتبي فإلى حضرة الأخ الفاضل والإمام العالم العامل والولي الكامل بقية السلف alxaaj ibn abubakar ibn cheikhina alxaaj bon léegi euh, ki bàyyi di bind ci ni euh, koy ràngalee rek ci nga xam importance bi mu lettre baa ngi jëm ci mbokk mi mbokk moo gën mi tey njiit loo xam dafa boole xam ak jëfee xam-xamam di wëli wu mat sëkk nag baqiitu sëlëf mooy koo xam ne na sëlëfu saalix meloon moom melo yooyu la amee ci ndesit ndesitu sëlëfu saalix la kii moo lay fàttali euh, ñi nga xam ne mooy ñi topp ci saaba yeeg taabiina yi nekk ci seen pas-pas alxaaj alxaaj ibn alxaaj aboubacar ibn cheikhin alxaaj bon boo ko gëstoo di nga ko hmm. ndax bon du doom maam laa ji السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من يكون يلي الإعلام بوصول كتابي كنا بولا نيونا ما نلي خمل السلاف بأكسنا أبو عرب كتاب رسالة براوة خطاب ألوكد دفع بل أي أي في ريب لاتر كم لين خمل لاتر مساج مسيك دم يجرحك لا سلاثة بأكسنا وفرحت به فرحا على فرح ما بكتي بكتي كو بك ما بكتي لول دا دونك وادي كو ام امبورطانس لما تضمن من نصيحتك لي في الله وفي الرحيم داك ليتر با لي تخ ما بكتي لول نياري يون سي كو دنج ما تي لاي غير يالا اك غير لي بوك yal na la yàlla fay aw yiw ci li ma bind leetar di ma laaye biir parce que sa mbokk la parce que itam euh, euh, yàlla ngir yàlla tax amma ma zakarta mu dugg ci vif ki amma ma zakarta fi ahli tay bañ amma nag li ma wax ci mbiram waa tay bañ faqad katabtu ilayhim kitaban bi mujarradi usuli barawatika mu ne ko nag kanta li nga wax nag ci waa tey ba ñaseen bi may jàng sa lettre bi rek laa leen daal di bind ab lettre xam nga nag wax na fale kitaabu wax katabtu kitaaban moo tax mu fab indi baatam farawatu pour diversifier moo yi quand même mu ne ko waalam ya axi أني دائما مشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كيوسمو بوكمي نغا خاب نك man mii an nii man mi daf koy fett bi bokk na ba noonu ana daa iman dappet musumaa jóg man mi man mii mu ne ko mustaxilun ku yitte wala kuy soxloo bil amri bil maarufi nahi al munkar ci digleel lu baax li tere lu bon lii ak lu sib li ci la dëkk daayima maanaam daal yaa ngi prêcher un convaincu waaye jërë jërëjëf mais pour loolu moom ci dëgg ci nga fekk moom suñu seen da nga déggee ji ne nit bu la santee loo nekkoon nit par courtoisie na koy gërëm quand parce que xëy na lu baax la ci jublu wala boog yow ah nga woon ko ne euh, euh, euh, bi wa qalami wa qawli wa fi'li maa ngi digle lu baax tere lu bon dëkk ci dàkk ci suma làmmiñ ci suma plume ci sumay wax ak mbooloo mi ci itam bu may agir di jëf ku ma gis yaa ngi gis nit kuy tere lu bon digle lu baax su ma waxee moom ngay dégg soo jàngee li ma bind moom nga ciy fekk laa axmilu nnaasa illa ala taqwa allahi fi sirri wal di leen ci sa taxal mooy ragal yàlla ci lu feeñ ak lu nëbb te bu ko waxee rek firi ko mu ne mooy lan bimtisaali awamirihi wa ijtinaabi nawahihi di topp ay ndigalam ndigalam yi di teet tereem yi wal ijtimaai di salawaati alxamsi ak waxtu ne fexe ba julli juróom julli ko moom taxul ñuy wax ba julli ko ci mbooloo wa qiraati wazifati ak di teewee wazifa bés bu set wa zikrillahi sirran wa jaharan ak nag buñ toll di fàttaliku yàlla ci wax ak ci xol ci lu biir ak lu biti wa tilawatul qurani ak di jàng alquran wal amali li talabil xalaali ak nag ku ne am loo jàpp di ko liggéey ngir nga mun a am lu dagan doo tappale doo nambare doo dóor marto yooyu xewto fa man imtasala amri fala yashtagilu bi hada nee na kuy dégg suma ndigal daal di ko topp lima ma tudd rek moo lay yitteel ci ngay nekk waaw wa man lam yamtasil amri koo xam ne nag digle naa tappoo sama ndigal fama ana bi saaxibi sayfin duma buuri julit nag bu amee jaasi ak i kaso fala yasta wa ma ala rasuli illa al mbaa yokk ci mu bind bokk ci kat bi doon mu bind fii mu bind boobu nag ay mu ne ko nag duuma nag amirul muminina buñ fal may buuri jullit bu ni defee dara ma tëj ko mbaa ma caw ko waa léegi du ma du ma noonu moom yonent na rasuli illal balaa ku ñu yónni jot li yónni te rek mooy sa responsabilité yàlla wax na wax naa leen jàngale na waade na mel naa ni ma leen di wax foofu laa mën a yem mm-hmm. ma ana bi bi sëy boo ko déggee maanaam boo bu ko firee awma jaasi mais ni bu amoon jaasi rek song de saay bu sëy fi mooy amiru muminin voilà da ma ma mooy garde soo moo moo amee yëfi dégg mu ne ko yàlla nee na قال تعالى لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي من يالا واخنا يونت نكو دولو كومبر كو خامني داغي سانتاني ñu ñu ñak ko top nga ngat dedet ولا نجي صو كون فذكر مو فذكر بالقران من يخاف وعيدي القران دار نكو جانغ كو خامل بو ما تكو نغ تي بو ما دنا ديغ لي غي واخ مانا سوما ديغ سوما ديغي يي ديم وعد لا اب او وعد بين الفت ديوك كنا مو ديغ وكات بنان فاينيه ان اوعدته او لمنجز ميعادي ومخلف لمنجز ميعادي آه، ومخلف ما نم لمخلف إيعادي ومنجز موعدي وإني إن أوعدته ثم بتكو أوعدته إكما ديكو ثم تكو ثم تكو ثم ديجي لما تكو دمو كلف لما ديجي دنافل آه، لمنجز آه، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي neen nag kon yonent bi wu alquran boo xam ne moo leen di fàttali di leen waar ndem faale nañ sama tukku yi ndax yëpp dëgg la mu ne wax na ko itam ne ko fa dakkir innama anta mudakkirun lasta alayhim bi musaytir yonent ci boppam la yàlla ne waat fàttali nit ñi waar leen zakkir dana firi rappelé leen zakkir dana firi waar leen ba tey rappelé leen la eh, ko eh, eh, wax leen rek war leen rek ndax lesta alim bi musaytirin doo nit ku leen dominer nga xam ne loo wax sa yi ko bañ même buñ amul conviction de ko kon maanaam li ñuy wax yépp tey maanaam yu bari di xew tey ci au niveau mondial ci ku am conviction ci dara di ngàdd nit ñeek yooyu bu loolu moom bokk ci islam wa qaala qad jaakum basairun min rabbikum fa man absara fa li nafsihi wa man amiya fa alayha wa man alaykum bi xafis beneen aay ne yonent bi wax leen lii jàngale yaa ngi nii jógee ci seen borom leer nañ ñi ku gis sa bopp nga gisal nee na ku ku salmaxa nag sa taskare la waaye man yonent bi du may garde maanaam maanaam garde du bi topp ku nekk ci yéen ba xam nu ngeen di def dégg naa leen ay nit ngeen am ngeen xel kon nag lii ko waa wax xam naa dafa gis kenn mbaa groupe boo xam ne ku topp bàyyi doo defee noonu wala doo waxee noonu wala doo mel noonu moom mu def ko discrètement ne bàyyi waxalal nii bàyyi nag wan ko ne wax dëgg yàlla waxalal nii jërëjëf waaye nag ci laa ne maa ngi leen di wax te maa ngi leen di won te yónnent sax itam nii lañ ko waxoon waaye nag bu amee ñu fettilu nag mënulu ba leen dara ça c'est très parce que itam euh, ab yónnent sax daan na woote moom te yàlla déggal ko mu gàddaay ba fa nit ñi yónnent yàlla Yunus rek moom moo gaawoontu gàddaay ngir kàccoor gaañi yàlla faf ko yar nag ci géej gi dugg ci gaal ga rek ba mu guddi rek ñu gaal gi indi problème am kenn ku ne gaal gii daal jaam buy daw dugg ci rek moo daal indi problème yi Yunus ne man la ñuy wax man maa génn gàddaay teel a joxuma ndigal may jaam ba dëgg rek plongé ci géej dugg ci benn bale bu yàggul lañu trouvé ne eh, xeetu place sangam ci géej sangam benn spécialiste nee na bo boo ci biir gémmiñ nga toog doo laal ci ko te amul nga dégg rek mu mu lump ko luy ba dégg nga de yunus rek nga ko lu ko mooy da ngay toog rek def li la war bàyyi ne ko fal xaasilu li am daal grosso modo ngeen koy wax ah laa alu jahdi fi nasihati man yasmau nasihati min ibadillah du ma arrêté mukk ci cinq ci waare fekk mukk wala dix du ma gàttañ mukk képp ku may kuy nangu suma suma laay biir ci jaami yàlla yow sotaari bi jaami yàlla yi دينا لين وقت لما من يب والذين يس والذين يسمعون لي لا يرى فيهم ولا يسمع إلا ما يرضي الله والرسول نانا ني توب سما ديغل تالو بي دغ وي خا مان لا نيو دغلو كين دو جيس تي نيوم كين دو دغ تي نيوم لو ماي لوي گيرم نو يالا اك لوي گيرم نو يونس تي ولا بل بو ديمب بو تاي اك بو دايما مالك واخ دغ يا kii boo boo ko seetloo woon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo amee sa dëkkandoo sa tonton sa kilifa boo xam ne parfumerie la yore te aayewu la nga dëkk kële mu amee ay robinet te aayewu la nga dëkk kii mu ay sarbet aayewu la yow ci bopp sax nga am ay douche mais dëkk ci tilim nag kon ku ku ñuy wax dina dëkk ci xet gu na xari waaw rek lay bëgg wa man laa yasmau lii fa laysa bayni wa baynahu shay su ma diglee jàngale koo xam ne paali woo la ma wax sequ maag yow dara xam nga nag ku mu neex nga ne daal ba bàyyi la déggoon naa ñu ne benn ndongo boo xam ne bu yàgg solo nob benn femme kooku mer mu ne ma dé man maa moom su ma nobee yokkee waxuma nga nob la bu la ci ñàkk fay dafa lay yem comme su nobee placé ko fu ñu ko faalee ke ah, <laughs> dégg nga la yasmauna lii laa yura fihi wa wa man laa yasmau lii xam nga wa man laa yasmau min nii mooy koo xam ne du dégg suma kàddu ci nox yasmau lii nag koo xam ne du nangu li ma ko wax xam nga ñaari dégg waaw shay'un wa naasu ala qismayn bàyyi na nit ñi sax ñaari xaaj hmm. ñaari catégorie minhum man talaba allaha wa rasula

فهجرته إلى الله ورسوله mooy ba muy gàddaay yàlla digal ko muy jëm madinatu munawara l'islam di waaj am nag benn cité état bu mu jur doon li ñëpp dañu gàddaay ngir yàlla ñiy nëbbu ñiy dem ànd ak yonent muy Aboubacar radiyallahu ñeneen ñi dem gannaaw am nag ci gaa ñi koo xam ne ndaw sam doon ngor moom moo gàddaay ne moom naay wutoon gàddaay ah. comme dem na Médina moom itam moo dem Médina xam nga dem yi bokkatul. yoon dina def déclaration bi mujj nekk ci xawaaid diin mooy innamal amal bi niyaat nag nag nag ba ne koo xam ne ba nga gàddaayee yaa ngi jëm ci yàlla ak yonent maanaam ngir yàlla ak yonent bi la kon sa gàddaay mu ngi jëm ci yàlla ak yonent la nga bëggoon loolu ngay am. addina bu ca yaakaar wala ndaw sum bugg a takk nee na ci la ko tax a jóg rek la jëm de. jëmul ci yàlla jëmul ci yàlla day bàyyi daal nañ ko commenté na xool yéen ni mu jógee ci euh, no jógee ci maanaam ci suñu waxee ñun lieu géographique ci kaw suuf jëm ci beneen lio géographique ba yéene ja sellee waxut ku jógee màkk jëm Medina dafa ne ku gàddaay jëm ci yàlla ak yonentam te am na sax ñu ànd ak yonent bi ko Abubakar donc même Abubakar bi mu ànd ak yonent mi ngi jëm ci yonent donc mu ne yéen yéen a yéen a fordal kii nag moom ma nga ca coono ba ma nga ca montagne ya du ba egg mbir ne waaye ndaw sa ko taxoon a jóg rek ko tax a jóg yàlla na ci jot sax nag wala di xasama maram ñas kii kii ngoro mareem ñas mais nag mu ne ibnu matar jëp euh, maanaam daal daal joor la point mu ne pour la tantani fi fali doa yi kat bul ma fàtte ci sa ñaan yu baax yi mooy wayda faqaynaa nuxbiruka bi xaqiqatil xaal bés buñ dajee dinaa la wax xaqiqatil xaal waxu ci lim doon wax de no ci ngor ku ngor gi toll ko lii yëpp nag suñ dajee ma wax la dëgg-dëgg bi dëgg mooy la ci laatal lii mi ngi aju ci ngor gi euh, ki takkoo ki bëgg a takk Marème Niass mu ne kooku mooy doomi Matar Dior mu jeex buñ dajee bu ma fàtte ñaanal de buñ dajee nag ma wax la dëgg-dëgg mbir ma yàq nañ ko yàq nañ ko joxe na daraam dañ ko gaaw a jëmale ak yooyu mooy affaire ndax bàyyi daf ko daan toppatoo am na lettre boo xam ne mi ngi départ ma naan diw nañ ko may diw diw nañ ko may diw ba wax yëpp ba mu jeex départ waaw moom day leeral affaire waaw wéel mu ne faslun nga ñëwaat nag ci beneen boo xam ne moom bindul ko fii ci sàll mu ko doon bind muy dem Mauritanie xam nga naar yi xam nga maanaam naari gànnaar yi dañoo am cër ci fayda ni ñu amee woon cër ci tarixa bi ni ñu amee woon cër ci diine ji ak xam-xam bi kooku yàlla lañ ko jox ci diine ji tout ci diine ji tout xam nga yëpp yaa ngi jaar Maroc jaar ci ñoom yëpp surtout Maroc bàyyiwul rek dañuy dugg Sahara ñëw muy benn waaw langue arabe noonu mazhab bu Maalik noonu donc tariqa bi itam ñoom xëy na bu ñu toogoon dana mës a dox ba egg si waaye nag Cheikh moom avec moo am yitte ji doon ne la mu xool semence mu ñëw dem Fass ñëw muy benn waaw langue arabe noonu mazhab bu Maalik noonu donc tariqa bi itam ñoom. xëy na bu ñu toogoon dana mës a dox ba egg waaye nag seex moo avec moo am itti jutoon yi la mu foon ci marché mu ñëw dem paas tuuti ko indi ko bi bàyyi mooy borom fayda tijaan yi doon surtout gannaaw bu waxee ne mi ngi ñëw waaj leen mi ngi ñëw waaj leen ba mu ñëw ñoom ñoo waroon am problème ndax ñoo doon sang yi ñoo weexoon ñoo njëkk jàng ñoo daan daal ci àddi yëpp mais dañu ko seet seet seet ñii ñëw làmb rek toog ñii ñëw dem wax seen morom ñu ñëw mais nag raaya ba drapeau ba Mouhamadul Nahwi bi gaañu daaw jéeg rek moom bàyyi xaafis Nahwi député boobu nga am association tey def sax gàmmu officiel boobu ci Mauritanie moom mooy benn boobu ba tax sax ñu si dégg moo njëkk ñu dem wax Cheikhaan la ko dawat li ñu doon xaar mi ngi ci as ndëkk suñu wax tuuti kooku ñëw waaw kooku ñëw moom itam rek boo demee fi mu dañ pause it dañu amul sens histoire mais bambel yooyu naar yu bëri fa lañ def ngir lekk yu naqari yaag jaww ju naqari yawaay duñ fa am feebar quoi waaw donc ñoom lii bii rek ñoom itam ci problème yi foog ñu am foog ñu digal leen mais bu ngeen digal da nga gis ne temps bi ak niveau bi yëkkatiku na euh, waxuma par rapport yi li passé yëpp mais par rapport rek au moins yu bëri daal bon léegi déglu ko Definitely, الحمد لله الذي من على أهل التمكين والتحقيق بالسير على زيادة الحق وسواء الطريق. لولا أنا خامس ما لقيت يا بريك يا رب آمين. تعالوا جانك رجع. براءة الاستقلال كي جانك العربي موي إنك تخبر بوني شرخ رك. كم أنت وقت رك نيو نيو جليل. لينجاي وقتي. ba maanaam daañu xam waaw daañu xam jàmm ngay wax solaay ay dangay yedd wala dangay ngay tagg waaw da ngay mooy ku dee nga di ko woy cëptu de funèbre wala da ngay taqrir ku bind lu rafet nga di ko wax lu baax bii nag dèjà xam ci mi ngi wax ay mag waaye xanaa lim leen di sant mooy ñu continuer dox déglu na maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo moom sant yëpp moom mi nga xam ne nit ñi dem ba dëgër ci yàlla egg ci taxqiq moo leen xéewal ñu boole ca dox ci digg yoon wi sawaw tari sawaw sabila bi daal quran mooy rek siraatu mustaqim boor demoon ci yomb tigi sax moo moo moo gën a gàtt de boo jaaree nii day gudd xam nga والصلاة والسلام على المرشد المعين الشارع الأمين mi ngi julli ci yonent bi nga xam ne takkal jox la ko grade yi ba mursid mooy aji jub juble mooy orienté ba pare di la dimbale ci lim la orienté ndax yoon yàlla day indi aaya mu indi euh, xadisam wane itam yéeg ca koo min mar ba ne nii la ñuy jàppee nii la ñuy jugee jiite aj gi ne aj leen ni may ajee voilà nag murshid muin itam xam nga ab téere la dégg nga euh, yonent bi nga xam ne acharii nga chariu léegi ci langage moderne mooy ci alquran mooy mooy législateur ki nga xam ne moom moom mooy tëral yoon wi ñu ko yàlla waxee al amin ku ñu wóolu nga xam ne liñ ko wax loolu rek la euh, am na gëstukat yi ñu ne yonent suuf sañoo na masla dara ci alquran laa yu ko yàlla yeddee kon du ko wax ne maa la may jabari ki nekkoon jabaru Zayd ibn Saabit Zeynab g takk na ko fase na ko ñun ñoo la ko takkal sa wëj naa kahaa bi mu ko xamee lee nag ne kii nga may kii kii doon jàmbuñ goreel kii di sa doomu bàjjan eh, kenn dëru ko ci Quraysh nga jël ko may ko ko sa diine ji amul amul discrimination nga may ko ko Zeynab buy bañ nga may ko ko forcé ko ko yàlla xamal na ne pourtant dana bu ji nekk sa jabar loolu nga rus nit ñi dégg ko وتخفي في نفسك ما الله مبديه loolu rek la def xam na ne li yàlla wax dana am te wuy ndaw scandale nit ñi danañ xam maa ko ko may ki ñu daan wax Zayd ibn Muhammad ah ndek yàlla dafa bugg a yàq loi bi daan wax ne maanaam peace adoptive boo mu yëkkati loxoom ci penc bi projet kii def naa ko doon daf lay doon nga di ko doon yàlla nag yàq booba ne ko nag yàlla nag yaa ngi nëbb loo xam ne man dinaa ko feeñal léegi tàggoo naag moom man may naa la ko Zayd bu lañ may ci asamaan moom rek زوجناك خم غن ديرو روكو نا دسي مستحقين غم ني القران يالا كو واخ رك زوجناك ماي نان لاكو مونكو لوتا مونكو بور كو جولي دوتو ام بن جين كوي نان بايام لا تي واخ ني سو فاسي كوم ورا تك كو واخ دي لير انا على نك مسير معين هو اللي كان وخيب لا دفرك القائل حدث الناس بما يفهمون peut-être yaa ngi dégg ci ci préambule bi ne dafay dafay dafay kii maanaam dafay def mise à niveau mu ne yonent boobu moo wax ne dee leen waxtaanal nit ñi ci luñ mun a dégg luñ attan hadis bi la ko mottali ndax da ngeen bëgg ñu fen loo yàlla du dëgg koo xam rek mën nga ko wax mën nga wa ridwanul akbaru an sirrihi al maknun saaxibil maqaamil makin mu ne nag mi ngi ñaan yàlla may ngërmaandeem la gën a mag may ko kan sirri yi ji bi fu mu ci yoon kon Cheikh Tidiane Chérif Ibrahima mooy mooy sirru rasulillah waaw mu ne yal na yàlla gërëm kon Cheikh mi nga xam ne mooy mbootam mi ñu nukk mi ñu nëpp mi ñu nëpp nëpp waaw hmm? saaxibil maqaabil makin te mooy borom maqaama bi nga xam ne moom jeex na moom ku ne da nga ragal ñu dégrader la un jour sauf moom moom makin jeex na wa ala alihi afdali fariq ba tey na ci boole ñooñ yonent bi nga xam ne boo dajalee groupe yëpp ñoo ci gën wa ashaabihi mu'tasimina bi hablil wasiq ak itam sahabaam yi ñi nga xam ne ñoom buum gu dëgër gi ci lañ mooy mooy wax ko fi mu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mooy mooy ci aywa xam nga kii ku ne xam ne fi mu jëm am na yoo xam ne boo ko mel boo ko melee waxuma wax boo ko melee rek nit mën na ci dégg par exemple moom lañu waxoon Xaalid euh, al Baramaki dafa dafa jege woon ci abati bi benn amirul muminina am ñu ko bëgg am ko ko bëgg a tuumaal ne خلم دفع نك جنغور من إذا ما نظرنا في مناكح خالد عرفنا الذي يهوى وإن يريد خالد من الكسر يمو يقور وان تير نخم لي بك فوم جنغور صاحب المقام المكين تب موي بروم مقام بي خمنا موم جيخنا موم كونت دنجر رجل نيو ديكرادي لأنجور صف موم موم مكين جيخنا جيخنا وعلى آله أفضل فريق فتاي نجبولي ñoñ yonent bi nga xam ne boo dajalee groupe yëpp ñoo ci gën ci wasiq ak itam sahabaam yi ñi nga xam ne ñoom buum gu dëgër gi ci lañ moy mooy wax ko si mu bi xabillahi jamian wala tafarraqu mooy mooy diine ci aywa xam nga kii ku ne xam ne fi mu jëm am na yoo xam ne boo ko met boo ko melee waxuma wax boo ko melee rek nit mën na ci déggee par exemple moom lañ waxoon خالد البرمكي دفن دفن جيجيون تي اباتي دي بن خمي نو مي دينا ام نيوكو بوغ ام كوكو بوغ تومال ني خلم دا فا نيك تي نغور مون اذا ما نظرنا في مناكح خالد عرفنا الذي يهوى واين يريد خالد بلا كوسيت ني موي غور وان تي nga xam li bëgg fu mu jëf ñu koy tuumal ak ay Euh, kon nag kii ñii itam ñi ngi jàpp buum bu dëgër gi te mooy mu ne wa baadu gannaaw loolu fa salaamun tataabaru bi shadaahu ashbaaxu lmuhibbina wal arwaax wa yuzilu ma gashiya qulubahum aw gasha min alhumumi wal mi ngi leen boo xam ne su ba jollee mboolem yaramu ñi sopp ngir yàlla ak seen roxo yi dafay parfumé wu xeñ wa yuzilu atam te itam bu buñ ko déggee day dindi lépp lu muuroon seen xol yi ci ay jàqare ak ay nax te ñi mu bind xëy na am lu leen jaaxaloon so ila kafati man bi tëjëg jëg waaye ñu ko bindee doon benn xay la ci Mauritanie atam Piquet Mbaye nga xumb woon 1966 dem nañ fa ak avion benn mag bu pilote pilote français ci avion ñu ndaw yooyu te xam ne bu gëmoon sax yóbbu avion bi moo ñu ko yóbbu daanaka piste amul ko woon wala amul solo waaw dem nañ ko tuuti ay fan te jëkk jëkk ay jëkkëru ko mu suñu السيدات يعني يجكجك نيوي لي بننا يجكجك من الإخوان المنتسبين ci mbokk yi nga xam ne ñi ngi askanoo ñu maanaam taal bi daal silwaan yi waxee di silwaan moo xam nag ñi nekk ay doom bi bàyyi wala ay jàmbur ñëpp laa ko tudd mu ne wa xusuusan al abdal al xusaan baat bi da nga jàng jàng ba ko utiliser ci wax yaar alxursaan alxursaan mooy alxursaan mooy alxaalis wala mooy léegi waaw ñu bëri buñ ko daangee dañ naan waa ji yàq na ko Mouhamadul Mouhamadul Mahfoudul Mouhamadul Ilias euh, bu Kachina. Seyd Mouhamad ibnu Talib yassara lahu mawlaahu jamii al mataalib wa man fi maanaahu min kulli matlubin wa taalib xam nga film baa ngi kii ñoom ñoom lay kii quoi ñoom lay yëngal kim ci ràññeel mooy Muhammad ibnu Taalib xamoon nañ ko mu ne nag yàlla na ko yàlla ci boromam yam yombalal mboole mi càkkutéef ak sax ku demee ni moom مو خمس سالو بلا مو خمس سري مطلوب مو سري طالب مو دار مطلوب مو كليفة طالب مو كل إلف نيب الرب من السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوصول كتابكم الأعز خطابكم السليم الأوجز أين هو خطابكم؟ mu baaxoon nag comme badal waaye def naa nii mu ne ko maa ngi leen di yëgal nag ne seen lettre bi gën a tedd bi egsi na ngeen wax ci si wax ju mucc ayib te gàtt na màqal la wëtal wax juste rek li ngeen bëgg a wax nekkul feesalu leen ci ay page dégg mu ne farixtu bikum wa bi axwaalikum sanniyati ajraha allahu fawqa maa nuxibu bi jaay xayri bariya bég naa lool kontaan naa ci seen situation nga xam ne vraiment mi ngi ci nam gën a yëkkati ko te sax maa ngi ñaan yàlla yàlla seeni mbir ci gën a dawee doxee gën a évoluer nu ëpp sax niñ leen ko bëggalee te loolu maa ngi koy jot li ko ci diggante ci milieu yi alayhi salaatu wasalaam nga seetlu ci ci suñu bu gaay du bàyyi rek mag ñëpp noonu lañ ñaan bi ak am na yàlla maanaam tëb rek wax ak waa te doo ko ñaanal doo ko parce que yàlla dafa wax ci alxor ne ma yabau bikum rabbi loola duaahu wax ak gaay ne yàlla naayu leen faale ah bu ngeen ko dootu ñaan bu ngeen du ñaan du ngeen ko wàññi dara dégg de ne summa inni uusikum wa uusi nafsi بدوام النصيحة للأحباب نخمدكم قد أمون بتوجد هذا اللي سبق الحساب اللي يجب بعيد أنا كل آه، نعم. ما جاك سبق بقي بقي على سوق سوق جارس أنا كي من كنا مانلين دي دينك دي دينك سوا بق ننني سختك دي لاي بيس تالي بيس سبقي مبين وبسط رضا العفو عن كل زلل مانلين دي دم dénk di dénk sama bopp bu rëcc rëcc amee pas nit rek nekk ki njàtt mais vraiment déggoo ma rëcc ngeen muur ko malaanam jégle waaw waaye faut pas matraquer quelque wa xusni zanni billahi wa bi ibadihi mang ngi leen di dénk dénk sama bopp rafet njort ci yàlla فقد قيل إن شيئا الخطأ فيه لا إثم عليك فيه wa sawaabu fiihi ajrun kaamilun xayrun min sawaabin la ajr fiihi wa xatayin fiihi ismun mu ne ko wax nañ ci xikmatu ne mbir moo xam ne boo ca juumee doo am bàkkaar te boo ca juumul am ca yool loolu mu ne moo gën beneen mbir moo xam ne moom boo boo juumul ci amul yool te boo ca juumee muy bàkkaar mu ne bu njëkk bi mooy nga jortu lu rek ci sa mbokk nee na in lam yakun kama zananta la isma aleyka su fekkee ne ni nga foog ci moom amoo ci tam amoo ci bàkkaar moo tax mu ne mbir moo xam ne boo ci juumee amul bàkkaar yow nga ne ku baax na baaxul amoo bàkkaar parce que da nga rafet jot ci yàlla summa alay la isma aleyka wa in kaana kama zananta falakal ajru bu fekkee ne ni nga ko foogee la am nga ci mooy loolu mooy loo xam ne boo ci juumee doo am bakkaar te bu bu dee noona nga am cee yoon mu ne ñaareel ba mooy nga ñaaw njortu ci sa mbokk ndax su fekkee ne na nga foog melu ko am nga bakkaar déjà su fekkee ne na nga foog la melu itam amul yoon amul yoon mu ne bayda an al fatha dégg leen ci définition yi muy boxal ci la toujours dafa def ay définition واعلم ان الفتحه نفحه قدسيه تجذب قلب العبد الى الحضره لان فتحه نيويورك قالوا نان حق فتحه نان اوبين لبوجوري حضره القدس تجذب قلب العبد تبي جذب تبي قد قلب جامبي الى الحضره مجم تبي ان بقي على المجاهده والتطهير عن رذائل الأخلاق سكن فتح دنقام دينيو لنفح قدسية وقمل قجل قلبي واجد كيو بفضلك نانا سكن تنا مجاهدة أك إفارم قمل سنين غانا يلي جوتو نانا سكن دفيرك ودفن نانك كنتيني noonu rek continue di laab ci maanaam jikko yu ñaaw yi rek gan nga dëkk هناك مفتوح عليه هناك فتاح هناك فاتح فتوحات ما شاء الله وإلا نمدد نمدد بني ومن ومدني رزقكم طار مناو فتح الدلو ويرجع العبد إلى الظلام لأن الجام بالدلو جل دم قمنكم ويصير كمن رأى في المنام شيئا يحبه واستيقظ ممن كدون ku xeme moon ñetti abdu gënt rek ñawal la ñetti abdu nga commencé sangor ak yow sa copropriétaire bu fekkoon fi ndox mooy sa ngom en tout cas yaa ngi ci point de départ nee na fatxu ku borom sëyru wut noonu lay am na feneen mu wax ne dafay gën a sax ne ci lëndëm nga day gën a tar ولا بأس بزجر كل من يريد الانتفاع من كشف الأسرار منكو أي منام لا بكو دف muy bon furoon naaru góor waaye nag quand même ko def léeg-léeg daal koo xam ne moom bëgg naa koo xam ne daal bëgg naa jëriñu ci pay bi mën nga di ko jàjj ko gis ci pay bi mu bëgg te moom amul ngoro lu may di feeñeel ay mbóot na ko jàjj loolu wàññiwul dara man mi ngeen def ko doon def hmm. am ñu ko ciy critique ma du ko loolu la baax loolu ne moom nekk ci moom foo nga dégg wax dëgg fa kashfu asraari rububiyati bayna al mahjubina ashaddu inda allah نانا mbooti rububiyat mbooti pay bi xaqaiqul irfan nga dem ci ay max yoob di ko fa waxtaane moo gën a xaram fa yàlla xaram liñ tere daal loolu lañ gën a tere fa kashfu asrari rububiyati bayna almahjubina ashaddu inda allahi min alxaram wa kullu maqamin xijabun ala ma dunahu dëggal définition bi maqama gumo bu mu station gumo bu mu hijab la bu dox diggante ak ba ko yées ka nekk ci ba ko yées du ko yëg moom du ko gis hijab la bon lu muy jub nag alama dono wali hada kon nag li nga xam ne boobu bëri ci mooy maqaama maqaama bee du seen maqaama saa boo ci waxee itam xëy sa nga nga fitnaal ko ndax ndax xëy na sax du ko du ko considère mu ne bàyyi ne wali haada réalité boobu moo tax laa nukallimu naxnu muridan fi xaalihi bi maxdari ahadin amul benn taalibe buy ñëw ku am jës boo ku yëpp ku ñëw kam man bàyyi may wax ak moom wala kuy roy ci man ngay wax ak moom ci maqaamam keneen nekk fa ku ma ko ku ko mos a gis rek wax ma man de mosuma ko gis benn benn signal yu benn benn waaye nag tàgg weer yi ah dañuy daal cuuraay yi nga nga wax bëgg ñu yéem la bu kooku doy na waar en tout cas c' est contraire à ça loolu la ñaa ngi muy jéem dana ne وكل مقام حجاب على ما دونه ولهذا لا نكلم نحن مريدا في حاله حال مريد بمحضر احد كان تكفر wala naskuru maqaaman bayna yaday man chamma raihatan in lam yablughu ku commencé fóon boo ci pay bi maqaam boo xam ne eggoo ca moom du ca wax ak yow te du ko wax ci sa kanam لأن لأن من شم رائحة الأحدية لا يسمع بمقام إلا ودعاه وظن أنه متحقق به معنى كفون بنو أحدية موي كان لك يالا كي بنغا يو داق أمك رجل يالا توقت نانا كتولو فوها نانا مقام بوليك رك دنغي جيمو ورتاني يانغشا te nekkoo ca loolu moo tax nag du tudd maqaama ci kanam ku ci yeggul da si mu ne wa iyaakum wa ifsha asirri maa ngi leen di moytandikuloo feeñal mboot waxoon na ci beneen bés ne même àddina xam ñu naan géwént dañuy aaye nettali ko guddi dañ ko tabax ci benn xaayida xaayida bi dañuy wax ne géwént boo ko gisee rek mi ngi flotté ci diggante baax ak bon luñ ko njëkk firi rek moom la boo loolu yàlla xam xaqaayat boobu ñu mën nga ko nekk lu guddi muy lu baax sax sa noon dina dégg téegoo ko mu firi ko lu bon mu foog nekk lu bon dégg nga ifshaaw wóoru ñu bëri dañ leen dig promotion ñu koy waxtaanee di ci yaataay bi benn way jaar ci suuf ko surtout bu ñu nekkee ci libéralisme ko pour nga xam ne dara taxawul وافشاء سر لغير اهله لا واخنا كو تا بوك مي نيت بوك تي دارا لا واخ داك موم دي فالواجب كتم الاسرار واظهار شريعه النبي المختار فالواجب كتم الاسرار قلقل واظهار شريعه النبي المختار نتي بروزي رك ني لي وار تي ندونغو دي وار تي ساليك موي نيب مبودي تا فينير شريعه يونس بي الله تعالى وإني نقبل بيتنا لا يكتم سرا إلا كل ذي ثقة فسر عند خيار الناس مكتوم نانا دو فيك موكو كوي نبو مبوت موي ورا نبو لوما يندي كو خامني ميتنا ني جوخ كو كونفيانس نانا مو تي نيت ني باخنا داي فاي نبو دايما باكال كو نك بون ني جوم باسكو داي يي داف نان تامي دور الانوار خامني سي موت تي ني بالا يبا بو خامني يالا رك خام لو يالا و شبي زاويه lappi ñu fay ko te du dawroo ngóob dañ koy la <laughs> bépp di jàngale di jàngale maab dawroo kan nga dawru dawru lëndëm ak nii xam du moom dana ci dawru jéem a seen nu mu koy mérité je crois que c'était le but quoi dégg nga dégg la ah, mu ne euh, waqat qiila إن من عرف الله فليس له مع الخلق لذة ومن عرف الدنيا فليس له في معيشته لذة بعد يعني داخل نكو نياري من نكو فوق نعم نكو هم نكو من نينا دفني وقنا نين كو خم يالا دوتو أم بانيخ بو جوغي جمي دفي تاتشو لا فانكو لا يكتي لا سيوال ويلا gradé la xam nga yooyu ay ñëw sax xasal la sa noonu wala wax la koo yebbul yépp ay feebar la ko boo ci nekkee nag xëy day doy waay moo ne ku xam yàlla loolu libre nga ci dootu la dal ba doxoon ci xamante yaa ngi naan maa ngi souhaité lu absurde mooy bés rek ma gis gor ku libre ku ku libre mooy ku nekk ci yàlla loolu la bëgg yow gis na ko ba tey waaye dafay woon ne mu ne koo xamee nag àddina rek nga xam moom àddina bi nga xam itam dootu ci am bànneex man gis naa koo xam ne dafa am alal ci dëkk sangam dëkk nit ku ñuul west africain anglophone dafa am alal mais li ko yàlla nattoo daal li nga xam mooy bànneexam gis benn jeune promoteur buy waaj a réussir rek mu <laughs> te kat contradiction boo demee tabax na ci dëkkam hôtel boo xam ne mu ne signal bu fa dal couple bañ lu bon am fa yow yaa nit ku nit commencé am tuuti xaalis rek nga ngàppi ko yàqal ko toog toog toog toog rek fexe ba gagné benn marché pour indi ceeb ci benn état Nigéria ku ci xam état bu lëm benn cité xam dañ indi ceeb xam kooku bi commande visé nañ ko commande bi yegg na confirmé nañ ko commande bi départ na commande bi egsi na restitué nañ ko jaar na douane accompagné nañ ko yegg na ci état ba te dara xewut yëpp imagination ak tappale ñu jox ko nag autorisation de change pour fay xaalis boobu mu jëndi ko maanaam mu mu dem mu yóbbu ko nag Angleterre boo temps boobu dañ daan nangu ci commerçant yi ñu ñu ñuy ñuy accepté xaalisu réew moom comme bu njëkk ni franc CFA meroon France bu njëkk amoon xanaa mën nga faa jëndi parto bu la ne xaalisam devise rare am boobu nag mu ci nag ci xaalisu réew ma nag ñëw nag ci avion personnel la ko rek wàcc ko fa rek di xax xaalis lu jar tapal wan nen rek yow mën nga mën nga comme tapalekat boobu nga xam def mënoon sàcc boo xam ne soo mu sàcc dara fii ku xamul kum nax def dara ci poos bi di ko wut ci poos bi gis jàpp ne nax na boppam ko nitu yàlla yi ñëw wóor naa waaw nee na naan xel lazatun wa man arafa dunia fa laysa lahu fi maishatihi lazatun ku xamul lu muy àddina sa dund dootu neex nee dara sax lu son li nga son nga dem uti beneen man maa gis ci am réew ma réewum arab rek ak mu jot mbedd sàng ba fekk étage bi nekkoon douze nga fekk fa treize boo ñëwaatee fekk fa quinze dañuy sutante tànk tabaxoogu sut bi jooto yéeg nga yow la te gis naa fi kenn xamul moo ne nag koo xamul way at ne lay salaw fii maïchati yi dans sa vie quotidienne dootu am dara lu ko neex parce que ña parce que xam nga li ñuy wax iñaan firi lañ ko ñu ba dañ mooy ku soxla na iñaan mooy ku bugg xéewalu sàmba dëñ même boo ci jotul yow loolu mooy hijra tamanni zawali ni'matil xëy tamanni zawali ni'matil xëy loolu mooy définition dégg mu ne wa man infataxat aynu basiratihi buhit dëpp dëgg coow yi koy dëgg yëpp mooy ku yeggagul fenn mu ne mu ne ma ne mu ne bët baa moom bëtu xol la la waaj loolu lay ju kër mu ne bu ubbeekoo waaja talatu ko buhit kooku dafay dafay gërëm dalatu ko walam yatafarrag lil kalam dootu talal nekk di wax di bebbe bi wax ji bu bëree bañ naan ko noppi yaa ngi c'est que bëtu xol ba ba tey dafa gëm basiratu moom bu ubbee ko rek waa ji am na lu ko doy wa usikum bi taqwa allahi fi sirri wal alaniya maa ngi leen di dénk ragal yàlla bàyyi ko xel ci biir biti fa innahu zaadul muballigh taqwa mooy yóbbal fi nga xam ne provision bi xam ne boo ko yóbbaale ci tukki mi du manqué fekk ba ngay gi mooy saa bu ñu bëgg yóbbal bu lay jot yi fa nga jëm wa tariqul mamuuna takat mooy yoon wi wóor amul pax su jàddul fenn comme autostrade doo réer hmm? Hmm? yoon wóor nee na mooy taqwa wa raaxila tey tam mooy waruwaay wi mooy oto bi mooy avion bi kon nag seet benn affaire boo xam ne mooy waruwaay mooy yoon wi te mooy yóbbal bi kon xanaa mooy lépp waxoon na ko feneen nee na mooy miftaaxu jamii mataalibil abd taqwa mooy caabi ci ñi ubbee mboolem càkkuwaayi jàmm dëgg ne wa aleykum bi muraaati lwaajibaat maa ngi leen di dénk ngeen di sàmmanteeg wareef yi nga xam ne dafa war xam ngeen ko xam naa ko na ngeen di sàmmanteeg moom xam ko ba pare sàggane ko waxuma ko تفكر في هناك انه من اوكدها من اكدها بان لك من اكدها كي اراك جلي جروب يلا دقوا نصنا حافظوا على الصلوات انه صلاه الوسطى وانا نجم فوق جلي جروب اي سورتو بجدك ما ني نموي تاكوسا ايه ودوام الذكر مع الانفاس واللحظات maa ngi leen di dénk ngeen di saxoo tudd yàlla ci làmmiñ ak fàttaliku ko ci seen biir comme mi ngeen di nokkee ak gendeeku bu nekk instance bu nekk instant bu nekk rek na ngeen di tudd yàlla fii awqaatiha bii mi ngi jëm ci julli moom jëmul ci zikr na ngeen di fonk julli te di ko tàbbal ci waxtoom fi jamaati te mu nekk ci mbooloo bi taxaat may yëtte mooy laab ak ndox mooy jàpp wala sangu su waree kon nag julli ci yegg ci beneen kii waaw julli juróom de waaye nekk ci mbooloo fekk amoo ngànt na nga jàpp fekk amoo ngànt te itam nga nekk ci waxtu wa mën nga bañ a toog waxtu wa passé ngay fay boo fee baax na te sufiyaan yi nee xool waxtu daf ciy gisaane ay waxtu yoo xam ne comme mu yàqu lay doon nga xam ne bàyyi ko ba mu faat nga fay ko waxtu wi parce que am na lu la waroon ci waxtu yi mais am na luñ ko séddoon mooy moom mooy waxtu yi nga xañ ko yóbbu ko déplacé ko yóbbu ko feneen dama seen seen gis dafa xóot دايغا من لين والوظيفة وظيفة ني وخون ني شيخ نينا اغلوميراسيون بوين فا جانغي ريك موي سين موي سين اسيورانس في الزاوية تي تي زاوية امنا نك ني امو زاوية ديكو داف تي مبولو فين مون دي دافير داخ جولي تي بوفم صاح يونتو داف نو جوعيد دي الارض مسجد وطبيعة سوفيك سما جاكلا تدفالا وامي ندوخ داكو بوكا مون تيم بو امي جاكو جيري بوكا مون ندن هيب جاكلا dégg nga de maal ixwaani dem ci zaawiya ba fekk fa tijaani yow ngeen wasifa maa ngi dégg wa muraati xuquuqil ixwaan ak tijaani yi sa mbokkum tijaan am na ay droit yu gaa la jox ci sa kow na ngeen koy sàmm seen na cheikh moom mooy sëriñ bi te nee na um, ko ci ab machad waxal fuqaraaw yi maanaam taalibe yi bu ñu lorante ndax seen lorante gi daf may lor لا اختبار سنعرف لهم شخصا dégg bi xawaatirihim nooy sàmmante seen xàq yi da ngay fexe ba bul bul bul yàq seen xol xëpp si xawaatirihim bul yàq bu leen nëxal wa kunu lillahi yakuni llahu lakum te itam ngeen nekkal yàlla yàlla nekkal leen man kaana lillahi kenn la loo wax nañ ko ci yelwaan ak ñi jàngale man sax dama demoon boobu maa ngi jàng ma ne xaaral su ma ko wooyee woon ci benn béy si dootu ko fàtte ma ne man kaana lillahi kaana allahu jalla lahu wa bil makarimi wa tawfiqi jalla lahu attention jalla lahu mooy jalla jalla lahu mu jël mooy daf koy muur ma ne ku nekkal yàlla rek yàlla nekkal ko daf koy muur malaanam tawfiq ak ay teraanga donc fàtte dina داغا نعم، مولا وكونوا لله يكون الله لكم ولا تخافوا في الله لو متلاه تذكر الفجر مك يا الله كل يد كل يد تمكوك ما نقول بني يد يا الله والذي نحبه لانفسنا ولكم ان تكون القلوب والهة بحب الله واصلة إلى معرفته عاكفة إلى مراقبته وخدمته محبة وشكرا سرا وجهرا الحمد بداني بداني mu ne li ma lima begel semua bab. bëggal leen ko mais bi nuuloo liñ begel suñ bopp te bëggal leen ko mooy que xol yi nani koy ci dem ba dem bi nam man ci yegg ci xam ko sax nag ci di ko fuglu te nekk ci service am ngir lan mu ne mahabbatan ngir cofee mu sax di yokk shukran ak ba sant koo xam ne jëf lay doon sirran ci ruuf nëbbu wa jaxran ci ruufe illaa leen ko kan xol yi nañu réer ci biir yàlla yegg ci xam ko sax ci di ko muraaxaw nekk ci service am te loolu affaire la ak sant بركز الأمر وأن تكونوا مشتغلين بالله te nag ngeen soxlawoo yàlla na leen yàlla préoccupé siira nee na yàgg nañ gis yonant bi ca njëlbeen lislaam mu ngi dox dans la nuit ma nga allah allah di dem Quraysh mujj naan laqad shugila muhammadun rabbi dëgg-dëgg borom muhammadan préoccupé na ko daal. Ah, foofu wax nañ dëgg. mu ngay wax di dem. moo léegi mu ne ngeen soxlawoo yàlla mu nekk seen préoccupation ni ñu koy defee mu ne bi raf di kulimation am lu dul moom rek nga bëgg ko teg ko fee jox ko gannaaw wax la mu nag la ma siwaahu ka sarabin bi qiati ma ne lu dul moom bu ko faale mu ne am kañ ndax na leen wóor ne lépp lu dul yàlla dafa mel ni li am rabaxoon njënoo loo seen ci pàkk xam nga lu ñu ne léegi man gëj naa wetu xer la mais boobu xer nga am ba tey sax xer foofu xer da nga daan toog ci seen mu mel ni ndox muy naan taxani boo eggee fee tudd ndox ay xaw ma ay kii alxuraan dafa nag moom dafay mel ni saraab la eh, boo ko seen teg ko ndox boo fa eggee doo fekk dara lu dul yàlla njëlu la njëlu وقد قالوا إنما انتقى شيئا من خالص محبة هاه ذلك عما سواه mu ne aarifi day nee nañu képp koo xam ne mos nga dara ci sopp yàlla gu gu gu gu sell hmm? eh, loolu daf lay soxlaa soxlaal walis lu dul moom nga di ko soxla mu ne wa usikum bisabri ala ma yusibukum min annas aadai lxadra maa ngi leen di dénk ngeen muñ lépp lu leen dal jóge ci nit ñi nga xam ne ay nit lañ de waaye dañu nekk noonu pays bi pays yàlla pays yonent même pays chef ku nekk noonu pays bi musiba moom ko dal doy na bu lay wax dara yow bu ko faale moo tax ci biir kaas wax na ci ne euh, wa in sarama wisaala axu wa wasalana al muhayminu waay mu jig nga toog suñu diggante fekk yàlla ngi jox ñun faale wuñu hmm? اوصيكم بالصبر على ما يصيبكم من الناس اعداء الحضره قال تعالى والعاقبه للمتقين يعني يلا نين موي كرافيت فور موي يرجل يلا كم بند بيان بيان يبور سن بود خاتكم وقال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم نحن يعني يلا وحنا فنن سنجن دimbal يلا كتف لين من تلين سنت سللكم moom mu dimbale mu dimbale leen mu def li ngeen mënul te itam daf leen di may ngeen cadré dëgër moom la arab bi wax seen i dëggu taxaw du taxaw du taxaw du taxaw ثم لمن على ازدياد أبو القاسم النسيم زاد قريش كل اقتياد من الذي الأب الخالد